de façon globale ci fi Sénégal toll. fi Sénégal toll ci coono fi Sénégal toll ci tabaski dëgmal si fi Sénégal toll ci euh, béykatu soble yi mënta écouler seen soble fi Sénégal toll ci baykatu gerte yi xaar ñu jox leen jiw mais peuple Sénégal 18 million personnes mënta tënku ci ñaari nit donc comédie bi foofu laa koy déggee te boo seetee dafa mel ni presse beeg réseaux sociaux yeeg ñëpp ñuy wax ñu du leen dégg benn discours lañu ñu am aji Ousmane. ku nekk ak sa interprétation te àtteeguñu ku nekk ak la muy wax ni moom moo ci xew ñi di génne ay communiqué di miim euh, te egguñu ci cëppaandaw yi mën a xam lan la tuumaalatante am na li ci am am na ci déjà fukki bakkan ak nangam rot na ci ça suffit quoi ça suffit donc boo xoolee tollu tolluwaay ak dundinu askan wi comédie la donte woon ni procès bu toll nii ak li ci rot ci ay bakkan mënatul nekk comédie benn côté di nga ko mën nga ko jàppee comédie beneen côté mën nga ko jàppee lu sérieux loo xam ni il est grand temps nag ñu vider ko te ñu ci am ay intention yu bon ñu teg ko. parce que ku nekk nag ak euh, intention bi ñu ci am est-ce que xam nga procès bi am na ñu ci dugg bàmmeel mais am na ñu ci nekk ay millionnaires am na ci nekkoon ay pauvres tey ñu mujj barem koom am na ñu ci yàqule seen alal dootuñu dootuñu gaaw a baax la waat donc procès la boo xamante ni bii. góom la bu dul gaawu a wér ci Sénégal c'est dommage. Euh, maa ngi koy laaj sànq euh, Birahim ci nasaraan Mansour am na euh, benn avocat bu wax ne Ousmane sonk bu ñu ko garantir li nga xam moo di sécurité am dina teew ci ci procès bi ñu taxaw ci loolu également ngir mu mën a teew peut-être bu teewee procès bi dina acte bi dina mën a gaaw ba ñu tourner boobu dossier. génn bu am solo la avocat bi def. Hmm. parce que li tax mu posé mu posé wàllu sécurité mooy. dafa am ñaar yu am yoo xamante ni musta am ci kenn ku ñu topp ci wàllu yoon nga jógee ñu toj sa weeru oto buqi la te ñi ko def mooy ñu waroon assurer sa sécurité amatoo sécurité loolu mooy dëgg ngay demaat tribunal ñun ñëw ni la cas génne la sa oto ni la suñu oto ngay dugg par la force entre temps ñu gis pompe gaz bu pompé wu euh, ñu naan ki la ko doon def sa militant la yarga si ñëpp ni yarga si mënta gazer Ousmane Sonko parce que inconditionnel Ousmane Sonko la ñuy tuumaal ko waa gendarmerie mais nit ki bu ñu ko naan cas pour di ko yóbbu tribunal diggante bi euh, ñu naan gazé nañ ko la gazé wuñ ko nekkatul ci sécurité nit ku jógee tribunal di ñibbi ñu toj sa weeru oto mu xàññi la ci sa oto dugal ci oto way takk der yóbbu la sa kër ñu ni dañu bëggoon nga gën a nekk ci sécurité bañ a bañ a bañ a bañ a bañ a indi trouble à l'ordre public euh, ay force de l'ordre yoo xam ni maintien de l'ordre la ñuy jàng mënoon nañu am méthode bu ñu Euh, encadré Ousmane sonk bu yóbbu ko këram fors te du ñu toj weeri oto mais mais toj weeri oto pour ñuqi nit ki mais c'est autre chose loolu image la boo xamante ni bii tey nit ki mënu koo dund à l'espace de deux mois ñu ni mu ci sécurité avocat bi lu mu wax noonu mooy dëgg nañu ko assurer sécurité pour mu ñëw ci procès bi loolu xëy na moom euh, aw layam la woo xam ne kenn mënu koo dindi boo xoolee ak li fi li fi jaar beneen bi ci des mooy ni ñu ni ñu tëjee woon quartier bi nga xam ne fa dëkk ba même ñu dëkk ca quartier ba doon laajte naan xam nga xam nga xam nga force de l'ordre dañu ko sos ci àdduna bi jox ko pouvoir yu ñëmuy garder amul boo xuloo moom yaa ko tooñ boo xeexee moom yaa ko tooñ bu la arrêté nga taxaw te yow amoo sañ-sañu arrêté ko raar mooy nit sax ñoo xam ne xam nañu ni bu leen way takk der tooñee am na yoon bu ñu mën a jaar sax pour topp ko moom individuellement kon kooku am na lu ko aw askanam jagleel xam nga ndax lan mu saytu sécurité askanam woowu waaw ma ni euh, ñëpp yi dégg ki jiite yooyu way takk der ñu tojal ma weeru oto bi tojal ma ko toj génnal force taxañ la dugal ci beneen oto mais loolu ku ko dund nag sañ sañ nga ni nekku mu ci sécurité nañ la proposer laneen lu méngoowul ak loolu pour dalal sa xel man loolu laa gis vingt vingt trois mai euh, la ñu jàpp Birahim euh, bu ñu xoolee euh, <coughs> avocat yu Ousmane Sonko ñoom jàpp nañ ni délai bi dafa ndaw un mois lañ bëggoon wala quarante cinq jours ngir ñu mën a gën a waajal seen bopp est-ce que soxla nañ loolu bu fekkee Ousmane Sonko moom wax na waxaat ni liñ koy giñ defu ko. waaw non mais xam nga kiy layal muy conseil avocat day wut.